mbokk yi Thialender ak capitaine bëre nañu léegi ba mi-temps si abi bi siflewaat na capitaine moo ñu woon ginnaaw moo nge boo lu weex li te ci li nga xamante ne nii capitaine Thialender arbitre bi siflewaat ñooy noonu ci digg géew bi. capitaine Thiel ñooy noonu ci biir. mu ngi noonu ba mi temps dellu si waat capitaine wàcc na eh. capitaine door na ko léegi kuumu dal. Thiel Nder capitaine. capitaine Thiel Nder eh eh. capitaine da ko dóor ñaari coup daal Thialy mam caxabal na ko capitaine Thialy Nder capitaine Thialy Nder capitaine na waxe caaroy géej ca Lindeer jóge Parcelles capitaine ca Lindeer na ko waaye caxabal ba dugul capitaine da koy puus da koy génne bañ na ma ngay puus ñoo ngay bëre capitaine ca capitaine Thiel ñoom ñaar dafa mel dañoo xaw na trop ñoom ñaar dafa ñoom ñaar dafa mel dañoo xaw a tolloo doole nag. dañoo tolloo doole. dañoo tolloo doole. Eh, capitaine ñoom ñaar a noonu ci diggi géew bi. metti na trop waaye. Seydina loolay làmb. jàmm noonu. capitaine Thiel ñoo ngi jàppante ñoom ñaar ku ci nekk am nga loxo ci gemb capitaine Thialou Nder capitaine boo si génnoonu ba dun la caxabal capitaine Thialou Nder capitaine Thialender jàpp na capitaine a ngi bëgg a jàpp wala boog Thialender ngi bëgg a jàpp jàppul booy xool ki di capitaine moo gën a nekk ci làmb ji doomu daanu ba du ci am fàq na ko ndax eh, na ko oh. capitaine Thialender lu mu koy def eh Thialender ca la ndeer capitaine ca la ndeer capitaine na ca la ji neex na journée Ouzin Production bëre nañu ba mi temps deel suwaat waaye sat bi sedd fay jar na ko. capitaine Thialy Nder capitaine Thiaroye Mbolo Thialy Nder Dóor waar capitaine Ahmed Deme ko andi capitaine Thiaroye Géej Ahmed Deme ko andi kii di Thialy Nder maa ngi fay gis brise mer capitaine Thialy Nder Thialy Nder taxaw na capitaine Thialy Nder Diagne Thial Nder combat bi dafa yàgg Thial Nder door na léegi capitaine Challenger arbitre bi àttewaat na arbitre bi jox na avertissement ki nga xamante ne mooy capitaine

dox na ci kawam gis nga li ma la da koy daan da koy daan Thialy capitaine Thialy Nder capitaine